vraiment analyse yi fi invité yi def vraiment am na solo trop trop sax. xëy na am na quelques points yu mu bëggoon a laal sama camarade bi. Victor Diouf mhm. Victor Diouf. Mhm. cest dire euh, pour am pacte boobu laa bëggoon ñëw tuuti. Mhm. pacte bi mosoon na fi am. mais central yi la ñun Sénégal suñu problème bi ñu am ci syndicat yi. bon non central yi <laughs> baal mais cent mais central yi ñoo am ñoo am ñoo am problème. central yi am parce que xeex bu jotee syndicat de base yi ñooy xeex. xeex tout à fait. mais les ñoom ñooy récolter les dividendes. te yàlla. bu ñu demee élection de représentativité centrale yi dem syndicat enseignants yi dem waa santé dem mais non waa université dem. Mhm. mais bi résultat yi génnee. Mhm. cent cent cent centrale yi jiite yi am pourcentage bi gars yi soxla. Mhm. ñoom dañu am subvention annuelle. oui c' est des de millions. mais éducation le G7 de 2017. ba G7 bi commencé 2022. du ñu am dara am du ñu am dara. te pourtant xeex bu jotee syndicat de base yi ñoom ñooy xeex. léegi syndicat yooyu nag moo xam ne ñoom ñooy centrale yi ñoom ñoo signé woon pacte boobu ngay wax. tout à mm-hmm. parce que ñoom pacte boobu dafa am lu mu leen jural. Mm-hmm. moo tax ñu nangu signé pacte boobu. Mm-hmm. donc pacte boobu mën na am ci éducation man gëm naa ne mën na am éducation mën na am santé. parce que déjà ñun amuñu lenn lu ñu état di jox. pour ñu am pacte. ñun xam suñu pacte mooy lan. accords yi. le maximum. xam nga accord mën na ko respecter à 100 pour cent. mais le maximum ci point yi nga xam ne moom nga signé nga respecté ko loolu loolu ba amee rek pacte am na déjà. Hmm. loolu loolu ba amee rek déjà pacte am na. parce que buñ la sa bu la sa bu la sa satisfaire ci say. doléance say doléance <laughs> mais boo génnee xeer sa sa doom naan la papa dem leen liggéeyi. waaw hmm, hmm. pacte day am. donc respect ak moom accord rek pacte la kooku mooy benn bi. deuxième point bi mooy ñun en tant que ay organisation surtout G7 bi nga xam ne mën naa wax ci seen ñun demandé wuñu augmentation de salaire. ñun li ñu doon demandé c'était nañu yamale. waaw xam nga mën du ma nekk un professeur RH a mu am beneen fonctionnaire bu bokk RH A1 kooku indemnité mën ma fay man. ah Diagne waxool na ko fi nit ñi di di naan. xam nga loolu loolu xel mënu ko am na ay enseignants yu dem ba am 1 million. xam nga Diagne ba mu ko waxee ba mu ko waxee la daanu. ba mu ne enseignants yi am nañuy fayeeku un million ba mu ko waxee boobu la daanu. parce que loolu amul. amul loolu amul moom indemnité la doon wax ne. non non non déedéet dafa amul du tout. suñu salaire ñun RH1 moo ci gën a kawe. Mhm. soo ko joxee sa sa sa salaire am jox ko ay indemnité am mënta am un million. ok kon leer na waaw dëgg la mënta am mënta am mënta am un million. Mhm. léegi nag ñun li ñu waxoon mooy yamale. yamale boobu nag moo indi woon ñu signé protocole 2000. 22 bi. Mhm. parce que état dafa def ay études. benn cabinet la woo mu ñëw mu fay ko ay millions mu def étude ci fonctionnaire Sénégal yi ni ñu leen di rémunéré. ni ñu ni ñu leen di fayee. Mhm. enseignement santé armée tout tout ñëpp rek. Mhm. ñu gis ni enseignement ñoom la ñu gën a néew lu ñuy fay. léegi cabinet bi def ay proposition ne mën leen a tollole mais mën ngeen a dindi écart bi nag. maanaam mën ngeen a wàññi moom écart mhm. xam nga man ñun en tant que enseignant suñu nombre nekk par exemple quatre-vingt-dix mille boo ñu bëggee comparer ak magistrat yi nga xam ne moo tax ñu trois cent xam nga di nga di nga indi moom ñu ñu jafe-jafe même bu ñu joxul salaire u ki ki ki ki bokk mooy RH moo def may wax même boo ñu joxul même sa même salaire bi écart bi nañ ko wàññi loolu la ñu la ñu demandé woon bi mu ko defee yéen a ngi mel ni ah am na ñuy demandé dinaa ñëwaat ci léegi bi ñu ko defee. résultat yi li mu joxe. état ne moom loolu mënu ko appliquer budget du ko at. dafa diis dafa diis ñu ne ko ok kon nañ ko négocier. Mhm. bi ñu koy négocier nag loolu moo indi protocole lu 2022 bi. ñun en tant que ay ay ñu def suñu étude def suñu contre proposition yoo xam ne état day def ay proposition mhm. état def ay proposition ñu ngi def ay contre proposition ñu àgg ci war a signer. Mhm. ñu ñu dugg ci problème mu impôt yi après. waaw waaw bi ñu duggee ci problème mu yi. Euh, foofu état def ay propositions yoo xam ne daf ne net à percevoir net après impôt maanaam ba ñu dugal ci ay calcul yoo xam ne day utiliser ay métaphore ay métaphore xam-xam yoo xam ne li doyen wax moo doxoon mooy ñëw <laughs> jàng ci sa làkk di xalaat ci sa làkk moo ñu génnee ci protocole boobu hmm. man maa indi ne leen seen tubaab yi ngeen di làkk fee ngeen koy teg. ngeen wax ñuy wax la net après impôt fee ngeen koy teg moom nekk à percevoir fee ngeen koy teg léegi man dama am métaphore wolof wala métaphore à la sénégalaise ñun ñi ñëpp ay baykat lañ te li ëpp ci li ñuy bay mooy gerte nañu indi métaphore naafu gerte pour ñu xam li ngeen ñuy yokkal ma ne leen li ngeen ñuy yokkal daf dangeen ko def naafu gerte bu nekkee naaf nañ ko bàcc ngooñ mi na bokk ci impôt bi su ngeen paree ngeen xolli ko xollit yi am na njëriñ na na bokk ci impôt bi su ngeen paree ngeen tànneel ñu kemb gi ngeen tànneel ñu xare yeeg yooyu buuse yi loolu na bokk ci impôt bi lii des muy kemb gi ñun loolu moo ñu intéressé ñaata lay doon waaw li ngeen di am net c'est vrai après gars yi moo andi woon problème bi sax day voilà ëpp ñu ëpp ñu commencé naaf mm-hmm. bu ñu liggéey bu ñu duggee ci ci PS yi ñu ñu defal naaf teg teg teg teg teg bàcc xolli tànn ñu ne noonu noonu non nañu yokkaat naaf bi li baaxul ñu yokkaat noonu noonu lañ ko demee ba ñu am accord boo xam ne accord historique la. Mhm. parce que yokkal nañu enseignants yi selon seeni catégorie commencé ko ci MC PC ba PS ba inspecteur. Mhm. ku ci nekk yëg nga sa bopp ci augmentation bi donte sax tolloo woo sa morom bi nga bokkal benn hiérarchie mais quand même sa njàmbat dootu bari. parce que presque sa salaire sax presque sax xaw na sax doublé ci ñenn ñi. Mhm. après augmentation donc ñun loolu lañu demandé demandé wu ñu augmentation mais dañ li ñu demandé woon mooy. moo ñu yemale équilibre quoi. voilà mu am benn équilibre boo xam ne même bu dul équilibre à à. mais mais mais mais mais problème de parce que ba ñu ngi réfléchir. waaw xam nga foofu kan lay andi problème. waaw suñu demee ci retraite ba. non non non du andi problème. parce que su boobaa parce que salarial bi non dafa yokk. waaw yokk na pour cent. dañoo yokk indexation salariale bi yokkal ñu aussi suñu cotisation bu FNR. waaw ah, d'accord yooyu yëpp ah, ah kon kay kon kay loolu mais ah, c'est-à-dire loolu bàyyi ma bàyyi ko xel beneen bi. attends pour ma pour nga bañ a dagg sama lii tuuti. léegi loolu bi mu amee. Euh. dafa am lu ko jiitu ci enseignement supérieur. waaw waaw waaw c'est vrai. parce que ñoom aussi. Uh-huh. foofu la ñu inspiré wu sax xëy na. Mm. pour ñëw ñun defal ñu ay contre proposition ci li xam ne étude bi moom moom la defoon. Mm. mais pour wax la ne rek ñun. nous ay sénégalais yu réaliste xam nañ li mën a nekk vraiment ñun bëgg ñu signé ak état accord boo xam ne xam nañ ni trésor public attanu ko ñun xam nañ loolu du ñu def loolu donc ñun am nañ étude yoo xam ne bi ñu defee seen i étude war nañu ne état lii la mën état mënul lii pourtant ñun liñ li liñ doon demandé ëppoon na li état joxe. c'est vrai ëppoon na ko mais quand même dañoo. ndax salaire bu ñu yokk. du am ndax salaire bu grève leneen lay doon. sax du am. xamul ndax du am. mais temps yii amul enseignant yi doon xam nga lan du am mais dañuy année yokkal nañ leen lu bëri quand même dañuy année boo jëlee ration fu ñu jógee. muy nguuru Abdoulaye ba si nguuru ma wax loolu loolu loolu. deuxièmement ñoom lu ñu nga xamante ne bokkul c'est différent. man j'ai vu j'ai su ñun si lañ bokk même ñun PACS yi ak bokk nañu ak ñoom yu bëri ay indemnités yu bëri. man je suis travailleur bokk naa ci syndicat comme ñoom mais en fait je leur dis souvent réew mi ñëpp a ko bokk suñ ko daree see doole noonu mais il faut la question il faut poser la question à savoir baykat bi nekk foofu noonu te nekkul fonctionnaire kooku lan mooy wàllam kenn nag kenn lan mooy wàllam parce que suñ toppee rythme bi ñu bëgg a demee enseignement aussi mën nañ dem ba xanaa peut-être ak l'arrivée du pétrole mën na am sens moo am sens comme moo ki mu ngi wax sànq ne euh, le problème de, de, de la retraite mais avant boobu xam naa mooy le problème de chaque fois il prend comparaison les les les le magistrat son corps mm-hmm. il y a une le magistrat amul ñaari fonction mënoo nekk magistrat exemple souvent nga ne da nga dem defaat beneen liggéey magistrat privé l' enseignant da ngay gis ko war a jàngale fii di jàngale ñetti école. Hmm. lu may ma may ma non ma non non non xam nga dama ci benn benn li boo xam ne. non non ma damay leeral rek may ma rek. xam nga non may ma rek may ma rek enseignant enseignant buy jàngale ñetti école amul. xam nga tax ma la amul loolu lañuy tuddee xar xarmat na de suñu non maa ngi ñëw suñu système maanaam. même ko defee daf koy def illégalement. waaw kay illégalement la ñun nag man waxuma lu illégal man lu légal moo tax may wax lu lu légal aussi laaj défendre un enseignant bu dem ci lycéem wala ci CM ñu jox ko programme am. emploi du temps emploi du temps bi c'est annuel pour année bi yëpp la. waaw parce que souvent da nga dégg ñu ne enseignant bi dafa grève pour mat loolu mënul nekk. Uh-huh. maanaam boo grévé. dafa am ay heure yoo waroon jàngale ci public bi nga grève ko. mënoo da nga ko war a fay da koy fay après sax da nga koy fay ñun jour yi ñuy grève da nga def dafay nul après ñun dañ koy fay léegi mënoo jóge ci jour boo grève heure heure damay xari matt école sàngam parce que école boobu ngay dem di fa di privé am na emploi temps boo xam ne heure boobu am na luñ luñ luñ fa mën a jàngale. lu luñ ci war a jàngale kon doo grève pour xari mënul nekk. mais bëri na ñuy xar mënul nekk non non non kii kii xari matt mooy ki ñu jox emploi du temps mu respecté ko. mais est que yoon may na non maa ngi ñëw mu respecté ko mu am ay heures yoo xam ne heure libre la yoo xam ne école bi soxlawu ko mu dem joxe ko école privée loolu même yoon da ko ko tere. ok ah, loolu kon kay yéen kon kay xam nga moom lim li mu wax dafa mel ni ñun dañu nekk ci non non kon déggante ngeen dégg non yéen a bokk yéen a bokk comme li ma wax yàlla na ci doole léegi mu wax ne enseignant yi am nañ yeneen liggéey non non li mu wax noonu yow loolu la bu ñu xaree mat c'est illégal non c'est parce que